mu ne wa uusikum fi muamalati aswaaqi ala muxaafadati qawaacidi sharci wa usulihi maa ngi leen di dénk nag ci boo leen ci biir marché bi ngeen sàmmonteeg ponki lislaam yi ponki sharia bi ak cosaani sharia bi ci ni ngeen di jëflante ala xasabi maa yuctihi l waqt ci li leen seen jot may li waxtu wi maye li mën a nekk watajannabu na ngeen moytu lool jamia wujuhil xish lépp lu aju ci wàllum wor wat tadlis ak lëntalu mbir ci njaay wala jënd wal kadibi fi taqwimil asmaan ak di fenn di wax lu dul dëgg ci ngir yéegeel seeni njëg waqti xaami ma xarama allahu min dalika bi nusuusi sharci ak di waat ngir mën a xët li nga xam ne yàlla da ko araamal ngir nga mën koo def jaare ko ci waat yooyu ngay waat loo xam ne yàlla da ko araamal ci nasu sharia eh, ngay def ay jalgati ngir mën a xëtt loolu loolu maa ngi leen koy moytuloo lool fa innal munhamika fi dalika yahliku kullal halak képp koo xam ne dafa xuus ci yi ma wax nag na xam ne dana alko alko gu rëy rëy léegi nag muy doog a ñëw nag ci li loo lu borom taqdis don ishara moy summa ida aljaati darura su fekke ne darura dafa am nak gannaaw ba waxe li bu pare su fekke darura dafa am washtaddat alxaaja aajo ji tar walam yajidi abdu jaam bi amul maljaan ben laqatu way illa an yaxuda qutahu ludul dul mu jële dundam gi limi dunde mu jële ko mimma ca la nga xam ne xurrima shar'an dañ ko araamal ci sharia fil aswaaqi ci marché bi maanaam soo demee ba amoo fenn fenn fu jaam bi nag mën a gisee lenn loo xam ne mën na faa jaare lu dul ne fi mu mën a jëlee eh, li mu war a dunde nii nii nii ci lu araam rek rek rek moo fi nekk loo xam ne mën na cee dund fii mu toll nii nii nii xiif na ba loru wala dara jot na ko ci mbir yooyu fal na jël te fekk yaa ngi ci marché bi na nga jël xadrama yataqawatu bii xadrama yataqawatu lu toll ne loo xam ne mën na cee dunde mën na cee taxawee nekk wala lu nekk fi dalika ala xukmi almuttarri fi aklil mayta kooku nag na fexe tolloog atteb ki loru ci lekkub medd yàlla dafa daganal bu nit ki nekkee cib àll wala fenn foo xam ne amul lenn lenn lu mu lekk te bu lekkul day faatu bu day faatu euh, mu gis am médd yàlla may na ko médd dafa araam te nasu alxuraan la waaye foofa yàlla may na ko mu dagg ca mbedd mooma lekk ca loo xam ne mën na cee mën na cee yegg fu mu jëm walla mën na cee suur eh, jóg dem eh, cheikh na lu mel noon nag bu fekkee ne daf la dal ci marché bi nag wala ci jënd ak jaay wala nga loru nit ki ci jamono boobu nga xam ne jaam bi loru na te bu bu bu bu loru bu kiiwul faatu mën naa jël eh, loo xam ne dana ko mën a dimbali ba mën a taxaw donte loolu daf koy jëlee ci loo xam ne dafa xaraam moo xam dafa këf yi fi jàmbur wala dafa jëli lu mu mënti doon su fekkee ne loru googu euh, amul lenn lenn lu mu a loo xam ne malja lay doon ci moom lu dul mu def loolu loola mën na koo def ndax dafay tollook ki nga xam ne dafa dafa loru ci euh, li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy euh, loro ci lekk am medd euh, jaam bi nag nga xam ne dafa loru nag loolu mu jël lekk ko te muy lu xaraam maanaam yëfi jàmbur la wala lu medd la wala lu xaram la wala lu mënti doon yakuluha daf koy lekk balaa xan ngir mën a jot boppam wala ngir mën a dund ndax bu ko deful mën naa faatu ca saasa wa saddan lil faaqa ngir timit eh, daati eh, fat ñàkk googu wala xiif gu metti googu laa kasban watamawulan du jël loola mukk moo xam yëfi jàmbur la wala moo xam loola lu xaraam la du ko jël mukk kas ban kasban watamawulan ngir woomlu ak wutub xaalis déedéet waaye dafay toll ci diggante boo xam ne ñaar moo mën a am mu def ko dund wala mu ñàkk koo def faatu loolu kese moo si mën a nekk comme loolu moo si mën a nekk nag kon foofa sañ na ko def waaw man de lii jàng naa ko ci fiq moom ci yi ci jaamia bi maanaam nit ki sañ naa dugg ci marché fekk dafa loru ba bu lekkul faatu mu këf njaayum jàmbur lekk ko même dañuy dem sax ba ne su fekkee ne Eh, waa ji dafa yor li nga war a lekk mu bañ ne du la kii sañ nga xeex ak moom ngir jot sa bakkan eh, waaye ba tey eh, lii pour ñu xam ne lii la doon junj ci fatwa bi muy wax ne cheikh nee na gaa yi nañ dem ci marché yi luñ luñ luñ soxla ñu jël ko qiyaas ko ci ci xaalul muttar lii la bëggoon a wax lii nag yi ko jiitu yépp ci ne nangam na ko moytu na ngeen moytu kii na ngeen jëflante ci li sharia digle na ngeen bàyyi nangam ak nangam yooyu yëpp moom da ko teg laalu ko fenn yoon lii moo tax nag mënul woon mënul indi texte bi ndax texte bi baat bu nekk dafay dafay dafay dafay màbbal li mu bëgg a tabax moom cheikh ne wa uxadirukum an tatahaafatu fi lmuamalaati almuxaramaati charan tahaafuta aljahalati min alaama Eh, maa ngi leen di moytuloo nag ngeen ngal-ngali ci jëflante yi nga xam ne dafa xaraam ci sharia ngeen ci ngal-ngali di xool noo koy daganaleek yu mel noonu eh, muxtajiina bi adami wujudil xalaalil muayyan di sukkandikoo nag naan amul lenn loo xam dafa xaram luñ mën a xam yuriduuna an yusqitu anhum shariata fi lmuamalat nga xam ne bu leen topp noon ñooñu nga xam ne liñ doon def dañ cee jublu daaneel sharia ci wàllu jëflante njënd ak jaay ñu bëgg cee génnee sharia bu leen def noonu yéen ndax ñooñu ko doon def de eh, liñ bëgg a def mooy faqad saaru dañoo mujj nekk ka annahum la taklifa alayhim mel ne yàlla sant leen dara yàlla lim la sant daf la sant nga def ko muy lu baax ci sa jëflante ak sa jaamu yàlla yépp gëm ne nag maanaam euh, euh, muamalaat yi ñuy def jëflante ci jëndak jaay amul amul lu ñuy tuddee xalaal ak xaraam ak yu mel noonu loolu kazibun ala wa zuur loolu ak wor ak fen la ak tuumaal yàlla la ndax yàlla dafa wax ne yaa ayuha alladin yaa ayuha naasu kulu min mimma fi l ardi xalaalan tayiban xalaalan tayiban wala tattabiu xutuwaat shaytan cheikh daan ne laaye jooj nag doonte dafa wàccoon ci ay nit nag loola nit ki da koy jël mu jëfe ko waaw nit ki da ko war a jël mu jëfe ko mu ne nag ci beneen page bi page cent quatre-vingt euh, quatre-vingt-seize li mottali risaala bi cheikh ne wa xutuwaatu cheytaan xam nga daf ne wala tattabiu xutuwaati cheytaan cheikh ne wa xutuwaati cheytaan illati naha allahu anha yàlla daf ne bu leen topp jéegoy cheytaane ne jéegoy cheytaane yi tere ñu topp ko nag hiyal muamalaatul muharramaatu sharaan mooy jëflante yi nga xam ne dañ ko araamal ci sharia xaytu yajidul abdu anha maadalan nga xam ne nit ki am na leneen lu mën a remplacer jëflante yooyu ci njënd jaay yi nga xam ne dafa xaraam am na leneen lu dagan li yàlla wax ne wa axala al riba waaye nag loolu mooy dafa am loo ko mën a remplacer kañ kañ léegi soo amul loo ko mën a remplacer nag mu ne fa illam yajid anha maadalan soo amul leneen lu mu mën a def lu mu ko mën a remplacer wa aljaatuhu awaaridul aqdaar bi xukmil kah wa taxattum e, dogali yàlla yu ko yóbbu ko ci jamono boo xam ne moom amul lenn lenn lu mën a def illa an yaxuda quutahu min al muharrami xam nga dañoo waxoon ne yii xaraam moom bu kenn laal waaye su demee nag ba xam ne sak dund gii ngay dund tey lii nga bëgg a lekk nii mënoo ko jële fenn fenn fenn fu dul fu xaraam lii daal njaayam jàmbur mii daal nga mën a lekk eh, doonte d'accordul doonte nanguwulaa may donte nangam jamono bo xamne wa illam lam suko nit ki jëlul minhu mata fil waqt da fay de ci sasi aw mata ba'd 'iyalihi ju'an way mom sa man na am moom kiwul way dom ya ci bopam ñoy faatu li al waqt wa fuqdan fuqdaani sabil li ghayrihi ngir ngir ñak waxtu maanaam moom mënutul eh, ne bu ma xëyee suba naa dem ba non non mbir mi tay la léegi léegi nii la koy lijjanti mbaamu mu faatu wala doomam faatu kooku nag fa huwa alwaaqiu fi qawlihi taala fa man turra gayra baaxin wala aadin fala isma alayhi eh, yàlla ne képp ku loro eh, nga jël moo xam loo loo lekk pour mën a dundaat loolu bàkkaar du ca nekk loolu la Cheikh wax. mu ne wala taltafitu cheikh mooy wax ba tey mu ne wala taltafitu lima nuqila ani ani sayid alxasan ibni raxaal bu geestu wala bu leen faale li nga xam ne dañu ko jëlee ci ku ñuy wax alxasan ibnu raxaal benn boroom xam-xam mu ne kullu la yujadu fiha illa man yuaam man yuamilu bil xaraam fa huwa xalaal foo dem nga xam ne danga nekk ci barab boo xam ne wala eh, circonstance boo xam ne amoo kenn koo mën a jëflanteel ko mën a jëndanteel ak jaayanteel eh, lu dul koo xam ne ci ci lu xaraam lay jëflante su boobaa loolu dafay dafay dafay dagan wax jooju cheikh ne bu leen ko faale ñu ne diwa ko wax fa huwa qawlun baatil ndax lolu wax ju wax ju junu la wax ju yàqu la wax ju tegewul fenn la ndax lan mu ne li kawnihi تغافل عن ضبط القاعدة الشرعية fihi ndax mom dafa sagane dafa dafa falewul qa'ida sharciya bi ci nek moy qa'ida loro bi والتحقيق فيها ميرمي دق دق هو ما ذكرناه قبلها آنفا موي لي مجون وخ موي ليپ دا حرام كم نيكو شيخ واخي ني اغ نك تي فو خامني نيت في جامبر ليغي ني داي فاتو تاي ولا دومم فاتو ليغي كوكو لول موي حال المضطر بي كوم سو فكه ني نيت ني la wax ne nit ki mën na buy taamul ak ak euh, bunuk ribawiya am na ci benn xaala boo xam ne xaala darura laak nangam ak nangam borom xam-xam di wax loolu waxu waxuma laak nag koo xam ne njaayum jàmbur mii bu ko jëlul lekk ko day faatu moom sëñ bi kooku kooku kay ban fatwa ana fatwa bi ndax loolu li koy seede mooy شيخنا اللي كويس يعني موي وخو يونس صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أك وحدي وحن إذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أك وحدي يالا وحن فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ويكاد بنينا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع شيخنا وفي هذا تليم وخنك ليم مجي وخ مع ما في الرسائل الأول الأول إيه، أك لما لين جك أنفوي أي رسالة تي أي لتر لما واخ أك لما لين جك أنا لولو كفاية تون ندوي أم نتش بفك كن دعي دعي بعدين لول فولين ورجار والسلام من انتهى من إملائه رضي الله تعالى عنه في لا لتر بيام léegi nag bàyyi lettre bi fi mu toll nii gannaaw bi nga ko dégloo nga delluwaat ci docteur Ahmed Lo ci taqdisul ashxaas mu ne la fatwa boo xam ne cheikh ak ko fatwa dagganalal ay taalibeem ngir ñu dem ci marché bi jël lu la neex su fekkee ne dangaa loru euh, euh, daat koy xiyaas ci nangam ak nangam léegi nag li ñu wax ci lettre bi yëpp mënu ci woon indi dara ndax lépp dafa wuuteeg Eh, lim bëggoon a wax qiyaas boobu baatil la eh, nangam ak nangam eh, yooyu mu teg yépp nag ci qiyaas bi moo tax mënu woon indi lettre bi moo tax mënul woon indi lettre bi léegi nag li li garaaw ci ci ci wax ji mooy ni mu ni mu jàngatee fatwa fatwa boobu dafay tegtale ne nit mën naa dund cig sàcc diirug dundam diirug dundam <laughs> nee fatwa bi loolu la bi loolu lañ ci déggee wala maanaam dañ cee déggee nit ki diirug dundam mën naa dëkk ci di sàcc moom dëkk ci di sàcc te loolu lislaam du ko xawma lan nangam ak nangam la ko gisee noonu la ko waxee moo taxit indiwu ko benn yoon texte mom lalu ko fenn fenn junj rek téere maga ci téré ba pa sàngam mais mënu ko indi ci ben yoon ndax l'islam euh, manam walum pauvreté dako ko dako dako fajj problème pauvreté ci yeneen yoon yu dul di sàcc ak di fi di jëlee fi jàmm rek nangam nangam te wax ji nag boo ko gisee li muy tegtale mooy suufeeg mustawa gaa yi ci dégg fiq lislaam maanaam ñoom cheikh <laughs> ñi nga xam ne ñu ngi ci tabaqaatu waxoon nañ fa waxoon nañ ko fi keroog wala boog ñi bind tabaqaat ñooñu waxuñu dëgg waaw cheikh xamul dara fiqul lislaam ci boppam déggu ci dara moom ndax lan moo tax ñu ñu seen mustawa nekk mustawa daifa ci loolu mooy dañoo sukkandiku ci seen ay mbiri tasawuf ak yu mel noonu su boobaa sharia daat leen ni réer ca la وهذه الفتوى معناها أن الإنسان المضطر يجوز له العيش يجوز له العيش على السرقة طول عمره شريطة أن يأخذ كل يوم ما يحتاج إليه فقط وهذا المذهب لا يخفى فساده فالإسلام عالج مشكلة الفقر بطرق أخرى شريفة يعلمها من درس شؤون المال والاقتصاد من المصادر الإسلامية وهذا كله يدلنا على مدى تدني مستويات القوم في فهم الفقه الإسلامي بسبب اعتمادهم على الحقيقة الصوفية فضاعت من بين أيديهم الشريعة وعلومها ni de la ko gisee lii lépp nag ci kenn xamul maanaam doo koy dugal ci tooñ ci ci ŋàññ ci ci eh, ñaawal eh, doo xam doo loo looy wax doo xam looy wax mm. eh, waaye man dama amoon fu ma ko dégloo moom te bëggoon koo amaat waxtaan wum doon def ci wàllu jëflante wàllu jëflante ak banque yi fu mu waxee ne maanaam bu fekkee ne jëflanteeg banque li ci des rek mooy banque banque yoo xam ne banque riba rek moo fi nekk est-ce que manees dafa dénkaane sab xaalis wala déet euh, xamatuma lum ca wax exactement euh, moo tax mënumaa jaaraat ca waxam ja exactement lu dul ma seetaanaat émission bi ci boppam waaye daal euh, maanaam jëflanteeg ba banque riba ci boppam am na xaala boo xam ne dana ci dagan xawma da ngay jël kii ba saraxe koog da ngay nangam ak nangam am na lum ci wax moom loola nag lii sax moo ko gën lu dagan moom eh, lii cheikh di wax ci xaalatul muttar ndax wàllum riba ak bunuk riba wiye moom kooku moom ay xaajaat la rek waaye eh, du ittiraar eh, kon loolu lañ doon indi ci texte bi nga xam ne moom mooy nekk ci jawahirul maali ak texte bi nga ak li mu ci wax moom ci taqdisu asxas boo xoolee ñaari texte yi waxam ja ak texte bi ci boppam liir gi ak boo leen dégloo li ma wax da ngeen gis ne euh, daanaka lépp maanaam euh, ci tashwih la ko teg maanaam ci ci ci maanaam nga jàngat nit ci jàngat boo xam ne daal bëgg nga ñu xamee ko nii maanaam bëgg nga ñu xamee cheikh nii nga jàngatee ko nii te ku ko xamee ni ko ni nga ko jàngatee yow da koy bàyyi ci saasi te mu bàyyi ko kese nga bëgg bëggoo leneen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته